Euh, yombalal nañu ci sunu liggéey parce que moom moo partagé vidéo bi ba ñun ñu jot ci waaye du nuyu ki nga xam ne tamit mooy mbay di grand frère ci jëmm ji toog nga xamante euh, yombalal nañu liggéey bi aussi tamit euh, ci noonu nag laay dalalee sama benn frère bu ñu gis ay vidéo yu viral que ni dañ ko dóor lacrymogène ci li nga xamante ni moo di bopp Touganeur teew ñu ne daal frère maa lay nuyu. maa lay fay di di la nuyu ci nuyu ki nga àndal. di nuyu Mbaye ma ndaw mi toog di nuyu sama sëriñ Cheikh Samsudin Ndiaye di mm. nuyu Sankara Mbaye mi nga xamante ne si que moom moo la boole ak man di nuyu peuple 221 mm-hmm. ak ñi koy seetaan yëpp di leen mm-hmm. nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay. Mm-hmm. Euh, frère ñu gis benn vidéo ci Sankara Mbaye buy xamale que ni da nga demoon euh, ci li nga xamante ni moo di ay manifestation euh, lacrymogène dal la fa mën nga ñëwaatal ci fee bi nan la demee. waaw dëgg la man maa def ak moom vidéo bi parce que dafa ñëwoon fii seet ma parce que gis na lim bi nga xamante ni jotoon na ma dal ci manifestant yi dama demoon pour pacifique rek xam nga léegi après far def li gën lacrymogène ñëw dal ma ci sama jébbi fii nii xam nga lakkaale sama côté bët bi fii nii en plus ma jàppee tamit ak dóor yi ma dóoraale moom ma xawoon a gaañ fii nii ba ma jotoon a dem hôpital xam nga ak blessure yi ma si jëlee ak scanner bi bañ ñama fii yax bi fii dafa xaw a damm fii nii dafa damm ah, bañ ñama dañ dañ may defal opération xam nga par mu do mu nekk loo xamante ni métti woon na ci man trop trop vraiment. Mhm. di ko sant yàlla lacrymogène bi nan nga def ba mu dal la dañ la ko dóor wala da nga wala dafa daw nii nga dal ci. man maa ngi maa ngi woon ci manifestant bi parce que man dew ma woon pour def dara dama jugoon pour manifester wu pacifique rek. dew ma woon pour xeex bu dew ma woon pour def dara. Mhm. man dama sigg rek lacrymogène bi ngeen ci man. après bi mu bi mu ma dalee fii après ci laa kawatee nag définitivement ci la ma ñëw ci la ñu ñëw jàpp ma police après xam nga ci lañ ma torturé dóor ma dóor yi métti ah. policier boobu ñu ngi gis sa fii mu ngi am blessure. waaw ba fekk boobu ñu ngi ñu ngi gis sama fii mu ngi naaj après ci lañ ma téye seen oto benn pendant une heure de temps après ci ne ma demal. Mhm. waaw la affaire bi la jàpp di la dóor. boobu ñu ngi gis ne boobu ñu ngi ñu ngi gis ne si am naa blessure et tout xam nga ñu téye ma fa pendant une heure de mhm. la hôpital. non yóbbuñu ma hôpital. Mhm. après ci laa ci ci laa ci laa ci laa jugee foofu xam nga am ñu ma ñu ma jël mooy waa parti bi xam nga ñi nga xamante ni si am na am nañ am nañ luñ ma jot a jàppalee mais wax dëgg fa yàlla damay gërëm ñi nga xamante ni d' abord ñoom ñoo ma doon jàppale ñi nga xamante ne jaar nañ ko si mbay ma ndaw mii gis naa nañ ma jàppale gis naa nañu ma taxaw vraiment mhm. di leen remercier tamit aussi bu baax a baax parce que taxaw nañ ma seetaanuñ benn yoon wax dëgg fa yàlla mhm. gis naa seeni yóbbante mbay war na ma lépp wax dëgg fa yàlla seetaanuñ ma benn yoon sénégalais di leen gërëm bu baax a baax parce que taxaw nañ ma bu baax a baax a a baax mhm. vraiment naam sii sax euh, am na ñoo xamante ne sii ka ne nee nañu pareeguñu mais wax dëgg fa ñu ngi may jàppale bu baax a baax a baax ci kii bi vraiment. d' accord météo woon na trop. d' léegi bi blessure bi amee ba euh, ñoom ñu jàppale di la léegi bi nga jógee foofu da nga dem hôpital. waaw dama dem hôpital ci suma assistance. Mhm. foofu nag wax dëgg fi yàlla damay gërëm Ousmane Diop ak euh, Ousmane Sow. Mhm. ak docteur euh, Omar Fall. dama mhm. leen di gërëm bu baax a baax parce que ñoom tamit ñoom ñoo ma yóbbu woon suma xam nga taxaw ma fa bu baax a baax a baax vraiment. bi nga demee foofu lan lañ la wax. Euh, bi ma demee foofu dañ da dañ ma defal dañ ma defal perfusion xam nga après daa demee ñëw léegi après presque 48 heures après ci lañ ma defal scanner ci laa dem ñu defal ma scanner bi ñu ne ma yax bi fii dafa damm léegi après ci lañ ne ma dañ euh, dañ ko war a def opération waa vraiment. Mhm. mais dëgg fi nit ñaa may taxaw xam ñu ngi koy jaarale ci mbay wax dëgg fi yàlla seetaanuñ ma benn yoon. gis naa niñ may taxaw encore une fois ma leen di remercier di leen jaajëfal bu baax a baax a baax. d' accord en ndaw tey nga demoon di xeex li nga xamante ni moo di euh, yoon ni mu ko mayee muy marche pacifique. Mm. tey loolu noonu dal la fa. Euh, naka nga koy dundee en tant ndaw nga gis tey ñu jàpp la xam nga comme ni nga ko waxee dóor la lacrymogène ba pare jàppaat la di la dóor euh, ba pare boo toogee yow seulement naka ngay dundee lu mel noonu. xam nga cheikh bi tey ñun duñu dañu dañu nekk ay ndaw yaakaar ci suñu avenir réew ñun ñu gëm ni si que euh, ni ko président Ousmane Sonko ko waxee ndaw moom mooy yor réew xam nga ñun ñu gëm loolu noonu am ci yaxin te nekk ay patriote pur tamit aussi xam nga ñu gëm ni siika que projet bii nii dañ ko war a porter ñun ñii nii donc xam nga loolu moo tax ñun lépp lu li nga xamante ni si que dafay jëmal Sénégal kanam ñun dañ siy jug ñu taxawu ci tey la ñu mën a gën a avancé tey la ñu mën a war a dellu ci kanam pour que Siga combat bi ñu porté nii ñu gagné ko incha allah rabbi te loolu li ma ci demoon tamit du ma ci regretté dara tamit vraiment wax dëgg fa yàlla. Sénégal boo soxla kon ñun ñun ñun ñun ñun ndaw Sénégal ak mboolem kuy patriote ñu dañ lay woo ci combat bi nii xam nga nga ñëw taxaw ñu jug ñun ñëpp porté combat bi incha allah rabbi ñu fexe xool nu ñu defaree suñu réew. ku ne xam na ni blessure métti na la rawatina lacrymogène ñu dóor la ko ci bopp. du ñàkk ay métti yoo xam ne aussi tamit yaa ngi koy jànkonteel période yi. waaw métti na trop wax dëgg fa yàlla nag métti na mais maa ngi sant yàlla parce que nit ñi taxaw nañ ma bu baax a baax a baax a baax surtout mbay mii nii ak sama waa kër ñi ma dëkkal fii ak waa Ngor gi yëpp wax dëgg fa yàlla taxaw nañ ma bu baax a baax métti na trop métti woon na ci man trop xam nga ba xam rek mais ñi ngi koy sante yàlla tamit aussi wax dëgg fa yàlla li nga xamante ni daf ma waroon dal la rek te en plus gëm naa ko daf ma waroon dal. donc tamit nangu naa ko mais teewul tamit li ma wax rek ñun Sénégal moo ñu ñor ay patriotes lañu gëm président Ousmane ko xam nga gëm projet bi ak lépp li nga xamante ne sii jox nañu ko rek ñun moom la ñu doyloo donc lépp lu mu ñu sant rek incha allah rabbi moom la ñu def. Euh, moment yi la policier yi di dóor jéem a riposté wala nga jéem a daw wala nga jéem a ñaan. non non jéem a ma daw jéem a ma riposté donc dëgg fa yàlla riposté wu ma fay wu ma donc xam nga rek ay homme de lañ donc dañ leen di jox seen cër. loolu kese rek noonu loolu mën a demee. Mhm. parce que soxor nañ tamit aussi vraiment wax dëgg fi yàlla soxor nañ trop. waaw mhm. ah. la jàppoon di la dóor. dóor nañ ma dóor nañ waa ji fii la ma kat ji ci kanam fii nii moom moom moom moo ma jural gaañu gaañu yi nii mais bon maa ngi sant yàlla à part bi ma la ko romachine bi dalee fii nii mais son bi maa ngi sant yàlla bu baax a baax. daf la la kat ji. daf ma dóor ba pare après ci la beneen waa jógee foofu si ñoom tamit ñëw rek saaga ma xam nga. naan booy bi nañ ko téye prison peut-être peut xam nga rek maa wax sama xel man dama gëm li ma doon quoi même ak lu ñu ma munti def tamit aussi man mën naa ko tegoo quoi dëgg fa yàlla mais maa ngi sant yàlla bu baax a baax a baax. bi ñu la jàppee may ñu la temps boo expliqué. non non may ñu ma temps bu ma expliqué waxuñu ma dañ ma téye daal benn pendant une heure temps après ñu bàyyi ma ne ma demal. Mhm. bi nga génnee foofu après ci nga dem hôpital. waaw ah, ci laa dem hôpital xam nga après ci lañ ma ci la ci la ci la ci la ci la ma waa ñenn ñi jël ñoom Ousmane Diop ak euh, Ousmane Sow xam nga wax dëgg fa yàlla ak tata Adama tamit. Hmm. dama ko fàtte moom tamit wax dëgg fa ñoom taxawu nañ ma bu baax a baax. ci lañ ma defar lépp. xam na ak mbay ma ndaw mii moom surtout moom moom moom mi nga xamante ne sii wax dëgg fi yàlla taxaw na ma taxaw mu metti chaque jour que je fais damay dem hôpital mais chaque jour moom day jël taxi aller retour chaque jour 2500 taxi aller retour chaque jour mën nañ dem deux fois ci journée bi xam nga. mu nekk loo xamante ne métti mais métti na trop mais wax dëgg fi yàlla damay gërëm ñi nga xamante ne jàppale nañ ko baax a baax. di leen wax gis naa seen taxawaay aussi. ci sa côté famille naka nga ko dundee parce que ku ne xam na ni yii moom bu xewee daanaka parents yi ñëpp tiit. ñëpp ay tiit ci sa côté famille bi mu dal bi mu la dalee naka nga ko doon dundee ak ñoom. Euh, ñi ma dëkkal fii nii wax dëgg fi yàlla taxaw nañ ma bu baax a baax a baax Cheikh Samsudine ñëw na ba hôpital seet si ma xam nga taxaw ma woo nañ ma di ma ndax maa ngi si jàmm xam nga laaj nañ ma ndax dara kii wala ma ne leen alhamdulilah maa ngi sant yàlla. Mhm. côté boobu moom wax dëgg fi yàlla. macha allah. Mhm. waaw ñu bari jàpp ni tey euh, tolluwaayu réew mi ñenn ñi ni est-ce nekkul Euh, li koy xeex mooy bàyyi ba le jour euh, li nga xamante ni mooy élection yi. Mhm. ñu dem voté sànni seen carte. ñenn ñi ne est-ce que tey loolu noonu tax na régime bi changé yow boo doon wax sa xalaat euh, est-ce tey jàpp nga ni en tant que ndaw yi war nañoo génn dem di xeex wala dañu war a toog xaar le jour yi ñu wote. xam nga tey génn xeexal sa réew ci lu baax la mais tey tey tey tey boo boo boo yaakaaree sa carte kese léegi ki nga bëgg a jox sa carte léegi ñu nekk ko yow loolu noonu du fi amee. ki ki ki ki nga bëgg a jox sa carte yow yow doo ko jox sa carte donc léegi yow lan lan nga mën a def da ngay jug nga jàkk def face ak ñoom léegi xam nga nga jéem a jàkkaarloo ak ñoom ñu fexe deltu ginnaaw ci lu ñuy def xam nga tey nga tey tey tey lu lu lu lu lu lu toll ni élection présidentielle ñu jàpp ko ci date le 25 février 2024 yow nga jug en tant que président de la république nga ne yow yow yaay yow yow yaay pousse date boobu noonu ci loo xamante ni te tegoo ko ci benn loi tamit xam nga loolu tamit c'est pas normal aussi. Mm-hmm. donc loolu moo tax ñun ñun ñun ñun ñun ñun ndawi Sénégal ñun dinañ def massivement ak lépp lu mu munti def. en tout cas daal à partir le 2 avril président Macky nekkatul président Sénégal. ñu bari aussi tamit euh, boo déggee seen kàddu la dëkk bi dafa metti que da nga yeewu sa yaay du am mu dëkkee yow nga nekk góor ci kër gi ñu bari aussi tamit ni daanaka loolu bokk na ci li tax ñu génn di euh, euh, kaas li nga xam ne mooy seen i droit. dëgg rek la ñu wax dëkk bi dafa metti dund bi cher na ceeb bi cher na lépp cher na essence bi yokku na lépp yokku na xam nga. ak régime bi fi nekk nii xam nga jël ay xaalis yi nga xamante ni sii ku ku ñi leen jege ñaale rek ñoom ñoo ci mën a gis seen bopp am ci yoo xamante ni dañuy xëy sii dañuy xëy dem di ut lu ñu lu ñu jox seen dépense am na si ñoo xamante ni sii jour bi si si si jour bi la ñuy lijjanti dépense yónnee nekk seen waa kër nga xam ne sii kon loolu métti na donc am na si yoo yenn yoo xamante ni sii euh, ñun régime bi fi nekk nii mu dem loolu moo tax ñu mën a changé wu loolu noonu mm-hmm. parce que nit ñi mën a am lu ñuy joxe dépasse seen biir kër mm-hmm. xam loolu moo tax ñu war a def massivement xam taxaw ci lépp ak ci suñu kéemtalaay kattan fexe jël fi ñu fi nekk nii quoi vraiment mm-hmm. d' accord euh, am na solo mais naka nga gisee euh, prisonniers yi nga xamante ni fan yi ñu ngi leen di bàyyi ah man de wax dëgg fi yàlla dama ci kontaan di di di gërëm Macky Sall xam président de la république di ko wax ne si que Euh, ñi ma waxoon ay terroriste lañu. Mm-hmm. a ah, man de wax dëgg fa yàlla keroog bi ma gisee ñu bàyyi terroriste yi damaa tiit sax man. Mm-hmm. Mm-hmm. ah mais dama dama tiit parce que ñoom ñu ne ay terroriste lañ jàpp. ak trouble à l'ordre public xaw ma ne manifestation non autorisée lañ leen toppee. Ah, bu dee ñi ñooy terroriste de kon ma xam ne man si terroriste yi laa nga jàpp askor doomu jàmbur tëj ko pendant pendant mois yaa xal ko liggéeyam xam xañ ko ay droit am. xañ ko liberté ak liberté nu mu mel ci doomu aadama mm-hmm. nga ñëw xañ ko ko léegi après nga xëy euh, euh, euh, kii benn jour ne ko génnal toppee wuñ la dara defoo dara xam xam ne loolu métti na tey seen ay waajur ñu yaakaaroon si ñoom xam ne loolu tamit du yoon mm-hmm. wax dëgg fi yàlla loolu moo tax man dama naan mais ñii ñii nii est-ce que à ñoom est-ce que est-ce yàlla en fait mm-hmm. fi yàlla man loolu man loolu daf ma jaaxal quoi vraiment mais di di leen ma masaw ñoom tamit ñoom tatuni politique yi di leen wax xam nga ñuy gën a góorgóorlu di wax sénégalais aussi tamit nañ leen jàppale. ñoom defuñu lu bon. ñu bari ñoo xamante ni si que dañ leen a tooñ dugal leen parce que man maa ngi leen di suivre chaque jour que je fais mais wax dëgg fa yàlla li ñu leen def métti na trop sante yàlla te xam ne lu gënoon si ñoom la. parce que jaam bi ak pexem yàlla ak ndogalam. tey di nga delluwaat ci di nga delluwaat ci li nga ne mooy manifestation euh, man de wax dëgg fa li nga xamante ni si moom la ñu président Ousmane Sonko sant mooy résistance tey lañ ko gën a mën a def tey la ñu gën a gëm projet PASTEF tey la ñu gën a gëm Seydina Ousmane Sonko mu sell mi tey la ñu gën a am yaakaar si suñu réew tey xam nga ñun lépp li nga xamante ni sii que day avancer le Sénégal kanam nag ñun wax dëgg fi yàlla danañ ci def suñu kéemtalaay kattan incha allah rabbi fexe ko téye téye ak suñu loxo ñun ñun ndaw Sénégal. Mhm. ci sa côté ci sa côté santé pour mu fàttaliwaat euh, loolu noonu fan laa amoon euh, manifestation yi. Colobane Colobane laa ah, ndax mooy man mooy àjjuma bëri passé su ma jum. boobu la woon d' accord actuellement nii euh, lan ngay wax bon volontaire yi nga xamante ni aussi tamit bëgg nañ la jàppale parce que il paraît que sànq ñu ngi waxtaan xam nga waxi sénégalais nag dinaa la jël en charge moom dañ cee gaaw. te daanaka ku ne xam na ni feebar dafa metti nga toog liggéey yow xëyoo gontoo yor njaboot yor ndey yor baay yor jabar yor doom gars yi naan la dinaa la dinaa la ba ba tey aussi tamit mooy loolu tey du ñàkk bonne volonté yi nga xam ne ñu ngi jàkkaarloo yow bëgg la jàppale en tout cas numéro téléphone bi mu ngi doon di daw boo wootee di nga jot mbay mais du ñàkk di leen wax ci sa côté état de santé ak ci sa côté eh, faj aussi tamit fan nga ci toll pour ñoom ñu xam nan lañ lay jàppalee. Euh, sama côté maa ngi sant yàlla bu baax baax a baax dëgg fa yàlla ci côté cadre kii boobu moom da di woo mbay xam nga man sama sama lépp moom la képp ku ma bëgg a jot aussi ci moom ngay jaar. Mhm. donc maa ngi sant yàlla gis naa ñi nga xamante ne jot nañ ma jàppale bu baax a baax a baax en plus aussi tamit euh, ñi nga euh, Fatima Mbengue ak euh, docteur Omar Fall ñoom tamit. dëgg wax dëgg fi yàlla taxaw nañ ma ci côté boobu baax a baax ñi xamante ne si parti la ñu bokk wax dëgg fi yàlla ñoom tamit aussi saytaanu ñu ma xam nga mais ci côté boobu maa ngi sant yàlla quoi vraiment maa ngi am tan bu baax a baax mm-hmm. waaw lan ngay tàggatoo bala maa ñëw ci mbay ah di leen gërëm yéen waa peuple 221. di wax sénégalais nañ leen jàppale bu baax a baax. Euh, di leen remercier. Mm-hmm. di wax mboolem kuy sénégalais na te réew mi ñor la rek na nga waajal xam nga jomaay mooy sonko sonko mooy jomaay. xam nga ñuy waajal bu baax a baax a baax waajal suñu campagne électorale bi incha allahu bi ak fi en tout cas daal le 2 avril président Macky Sall nekk président ñuy waajal suñu campagne fexee gagné incha allahu rabbi. ayca am na solo. jërëjëf euh, Mbaye xam naa da ngay da ngay da ngay da ngay jege si nii voilà Mbaye non euh, euh, du ñàkk di nga ci sànni kàddu en tant que sa frère. waaw waaw nga gis lu mel ni dal ko. Mhm. ñu bari naan xale yi ñoo ko yóbbee seen bopp ñu bari naan xale yi dañoo war a toog. Mhm. Euh, ñoo yàq dëkk bi yow mi nga xam ni sa frère la bi ko lii dalee naka nga ko doon ak moom. waaw bon man sa affaire bi yëguma ko woon parce que man tamit maa ngi si ñi nga xamante dañoo demoon pour marche pacifiquement comme ni ñu ko lancé woon. voilà euh, il nag marché bi comme euh, ñu dem ba si biir ñu ne autorisé wuñu ko ginnaaw ba nag conseil conseil moo ñu mooy loolu ñu ne nag tey dañuy dem. parce que bu ñu xoolee barke démb rek euh, démb marché bi nga xamante ne autorisé nañ ko amul amul amul mort amul blessé amul dara tout est que yàquñu la Coromagel donc ñu xam ne ne kon autorisé marché si la jaax ma nekk. du dëgg surtout à la rawati bu ñu defee loo xamante ne lépp da nga koy tag si yoon voilà bu ma yëgee kaawam parce que boobu comme ni ma ko waxee maa ngi woon si euh, ñu doon manifester pacifiquement bi ma ñibbisee si leen ma woo ma euh, yow fara faramaaren dañ ko jàpp dañ ko dóol la Coromagel jàpp ko sax. te li tax ma gën def vidéo mooy dañ ko jiñ sàcc. parce que ñoom ñi ko jàpp euh, nekk gendarme FDS yi dañ ko jiñ sàcc. Hmm. ne moom ñi ñaa ngi man ni moom muy sàcc léegi nag euh, euh, benn journaliste bi bi bi jël image boobu mu siiwal ko si internet bi ne kii de dañ ko jàpp muy sàcc moom ñii ñaa ngi manifester di casse seen droit moom muy sàcc. vidéo boobu bi ñu ko seetaanee mën a ah attends donte ne moom am na métti talul woon dara boobu mu tudd suma si laa jóg su guddi gi def vidéo ma seetal deram en en première partie ma ne leen du sàcc dafa ñëwoon pour def marche pacifique ba yàlla def ñu dóor ko lacrymogène bi ñu ko dóoree lacrymogène gars yi téye ko léegi nag bu ñuy dem noonu journaliste bi dégg euh, xam naa gendarme euh, police bi def na ko yow ah, da ngay sàcc mun ne ko sàccu ma comprendre nga léegi nag am am na sax ñu doon wax naan manifestant ñoo ko doon dóor mhm. moom loolu la weddi na ma kenn dóoru ma au contraire ñoom ñoo ko dóor du dëgg bi ñu ko dóoree ñu dugal ko ci oto bi comme ni ma ko waxee lu ëpp une de temps mu toog mar na fa naan ñaan leen ndox ñu bañ xam nga menacé nañ ko fa naka 5 ans ngay def prison bi ñu demee ba xam ne nag kii il va mal parce que demoon benn instant xaw na perte de connaissance xam nga après si lañ ko bàyyi mu dem. Mhm. léegi bi ñu ko bàyyi mu dem. Euh, juste nag ñoom it Fatima ñi mu tudd ñooñu mooy euh, euh, euh, ñi nga xamante ne ñoo ras wàllu wàllu woowu si côté Pastef mm-hmm. ñu gis ko nag jël ko si ambulance bi yóbbu ko suma bi ñu demee foofu nag si lañ ko commencé di ko traité di ko traité si 48 heures mooy de 48 heures yàlla def mu tane bon. après nag si lañ ko bindal euh, koo xam ne mu war a dem gis ophtalmolo yàlla def na dem nañ barka démb Abbas Ndao ba am ku ñu booleel foofu mu xool ko mu def ñaari scanner bi si mujjee rek démb lañ ko def mooy scanner boo xamante ne fas yàlla li ko dale fii ba fii la ñuy jël ba xam na euh, amul dara lu méjje léegi si loolu la ñuy sukkandiku pour xool opération bi nen lay demee voilà ba war nañ dellu foofu incha allah yóbbu kayit bi euh, suma jox ko médecin bi mu xool voilà loolu daal en grosso modo loolu laay tënk si li nga xamante ne mooy euh, kaawam moom mi nga am ne mooy Faramareen. d' accord donc mu ngi noonu xam naa dinaa ñëw ci détenu yi parce que faaw nga sànni ci kàddu. Mhm. Euh, képp koo xamante ne aussi tamit bëgg nga ko jàppale rek numéro téléphone boobu di daw. Mhm, mooy numéro mbay boo ko woowee rek mooy jëmm ji toog incha allah di ko jot. Mhm. Euh, naka nga gisee détenu politique yi nga xamante ne commencé nañ leen la libérer depuis barki démb. waaw loolu bonne nouvelle la ah bonne la parce que tamit le fait que ñu libéré lu ëpp 600 bay dugg 700 c'est une bonne chose ñëpp si kontaan voilà ñëpp si kontaan bon du ma ne sax damay remercier qui que ce soit mais daa nekk la loo xamante ne lu baax la ala rawati ñi ñu jàpp ñëpp euh, bu ñu génnee ku ñu def euh, ku ñu interroger da nga naan lii de leen ma jàppee nangam ak nangam après ñoom ñoo na laan defoo dara aca demal sans ñu juger leen loolu moo si nekk lu xaw a doy waar mais na continuer rek euh, ñu ñu bàyyi ñëpp daal waaw ñu ñu bàyyi ñëpp ñu dem Euh, ñibbi euh, euh, seen kër yi ala rawatina ñi nga xamante ne kenn àttewu leen parce que ki nga àtte tey gi nga condamné ko si dafa rey nit wala dafa trafiquant la ñooñu waxuma ñooñu parce que loolu yoon mooy def liggéey si ñoom mais ñi nga xamante ne uniquement dañuy génne pour manifester nga jàppaleen ñii nga jig leen terroriste ñii nga jig leen ay rebelle xam nga ñii nga jig leen lu nekk daal nga dem ba si biir jugé loo euh, euh, demuñu jugement nga génnaan ne leen acca dem leen te leen 9 mois ñii 8 mois ñii di mois ñii am na ñu métier depuis 9 mois 10 mois liggéeyuñu yaan na nag nga gis si ñoo xamante ne dañoo yor njaboot mhm. donc loolu bu amee euh, duñ def dara lu dul remercier leen voilà mhm. d' accord xam naa fi may jeexale du ñàkk tamit loo xam ne di ko lancé waale parce que ku ne xam na ni mhm. boo génnee du ñàkk di nga bëgg dund te aussi tamit maa ngi dégg ñoo xam ne sax dañuy yor ay diplôme di liggéey. waaw gis gis naa si intervention yi ñi nga xamante ne dañuy génn bu ñu leen laajee ban métier ngay euh, ban métier ngay def ñu joxe sa numéro pour nit ñi jàppale la mu nekk nag euh, lu baax a baax imagine ki nga xamante ne polombier la woon wala mu nekk maçon mu génn ñu laaj ko lan ngay def mun na polombier la wala électricien ñu joxe numéro pour en ñi leen di jàppale parce que nit ki ngay jàppale mooy dañ koy jàppale si métier nga jox ko xaalis neex na mais tey gi boo amee liggéey bu mag nga oo ko ginnaaw 10 mois yi mu def prison nga nekk liggéey baa ngi nii nga am li nga siy am nga def sa poste loolu tamit lu baax la mooy profité di di di euh, di di di massaw ki nga xamante ne mooy Azora Azura Fallou ku ne xam na ko moo daa yor drapeau bi nekk ci ginnaaw pour moom am dafa spécial parce que dafa génn waale ak euh, handicap bu muy dugg dara jot ko mu génn nga gis ñu gis ko ak euh, beeke bi kooku moom xam naa ne moom bu ñu koy jàppale double jàppale lañ koy def non seulement dinañ ko jàppale mu liggéey mais dinañ ko jàppale aussi tànkam boobu mu normalaat quoi moo tax euh, may lancer appel euh, surtout surtout si le cas de Azoura Fallou euh, ku ko mën a jàppale rek di nga xam fi ngay jaar ba ba ba jàppale ko moom mu amaat lépp daal voilà. kontaan naa. Mhm. a kontaan mhm. sa mot de la fin. waaw mot de la fin bi mooy ñu ngi dëkk ma li nga xamante ne mooy ay élection ginnaaw ba bi nga xamante ne conseil constitutionnel annulé na li nga xamante ne décret bi nga xamante ne si le président Macky Sall sukkandiku woon ba toxalee ay élection mu nekk. Euh, benn chose boo xamante mënul nekk. ci mhm. histoire àddina laa wax mësul am. kenn mësul reporter ay élections dix heures de temps avant yoon mayee na nga reporter élection mais non seulement day nekk six mois avant aussi timut mu nekk loo xamante ne la koy la koy euh, la koy yóbbu la koy reporter ñu ñu ñu pousse élection yi day concerner la population maanaam soit feebar bu metti day am si dëkk bi walla ab guerre am. donc comme que loolu amul ñoom njéem nañu créer ne dafa am crise ay patati parce que crise yoo xamante ne c'est personnel loolu moom waroo tax ñu toxal ay élection moo tax ñuy jaajëfal conseil concerné si seen liggéey bi nga xamante ne def nañ ko ba annuler loolu ba pare nag ñu jox leen ne leen d'ici le 2 nañ fexe ba élection yi am. loolu mooy sama moom mooy sama dernier moo di ñaax patriotes yi aussi gis neen fan yi ñu ngi def ay caravane euh, ñu ngi euh, dugg si nit ñi ñaax leen xamal leen kan mooy joomaay ginnaaw ba joomaay mooy sonk sonko mooy joomaay ñu jëm leen a sensibiliser bu baax te xam na bu soob suñu borom léegi campagne bi démarré su ko defee avant le 2. ñu jàpp élection yi que le meilleur gagne. Mhm. mu ngi noonu jërëjëf. Mhm. Aïcha mu ngi noonu ah. Mhm. ma leen di jaajëfal bu baax a baax comme ni ñu leen ko waxee rek euh, euh, ku ko bëgg a jàppale rek incha allah rabi boo wootee ci numéro boobu noonu nga gis di nga jot mbay di leen jaajëfal di leen jox dig daje yeneen émission fii ci People 221 jërë ngeen jëf. merci beaucoup.